ñëw jégalu ma. Eh, yaa mën a tuuli yaa eh, eh, jégalu ma. yaa jégalu ma. bu jégalu sa morom. Pocho moo ko jox Pocho. ci la TV moo ko amateur kontaan mais moom mbaam la quoi. yéen ñaar ku mag yéen ñaar ku mag. moom mag gërëm fukki bi moom dara di ko si di moo mag. ku maa ngi ci 2005. waaw. 2019. 2005. 2005. booy na est-ce que du ngeen wàññi seen seen seen. mais xam nga lan laay wax. gars yi dama dégg commentaire yoo xam ne a kii du ay noon. lamb la waaw jeexee jana ak tout moom bu ñu dee xam nga lu may njëkk a wax. neexal lamb ji. mais gars yi ñuy wax ñoo xamul quoi. comprendre nu la comprendre nu moom nag Basaar moo def erreur de moo njëkk a dóor. moo la dugal arrêt. Eh, eh, da ngay fen Basaar yow yaa ko ah. njëkk a dóor. yaa njëkk a dóor. yaa ko yaa ko buux. voilà. ngëm nattee ngëm li ma bu leen xuloo bu leen xuloo man gis naa la baasul yaa njëkk a dóor non yaa ma tooñ nag ma baal dañoo def si ma tooy sa ngëm li fii ci ci a waaw léegi léegi message bu ñuy lancé mooy adduna bi yëpp a ngi seetaan lii dafa naaj ñoom ñaar ñoo daje final taxaw di waxtaan du ñooy ennemi ay adversaire lañ jeex na jeex na dañuy neexal commentaire yi nag gis naa ay damay saaga rek li nga léegi maa ngi leen di jéemal bu baax gis naa ngeen def ak dugub naaj mais am na loo xam ne nag bu baax man bi ma ñibbee ba si naan commande gis naa sama fan si ñu bëri ñuy saaga Mame Fall. loolu ñu waroon leen maa ko gis nga affaire bi. lamb la lamb moo ñu boole maam Fall lamb si suñu dajee suñu benn bi dañuy waxtaan masla nuy wante lamb mais suñu xëy sama ngay wane ku nekk day wane sa njàmbaar gars yi dañu comprendre bu baax ñun duñu ennemi ay adversaire lañ maam Fall ba baax moom day ñëw animé ambiance waa si bëri kontaan waaw man man bul jooy man bul jooy moom maa ngi li peuple bi jox ko mouchoir jox ko mouchoir yow ak ah. da nga fay wala lu mu doon fay ma mais tey moom sama boy la amoon ma la te tey am na. kon yow kay yaa mag kii waaw déglu waaw déglu waaw waaw waaw maa la mag waaw maa la mag léegi xam nga ma la. waaw ndàngaan dafa am ñoo xamante ne ñu ngi fi damay mayante ak ñoom. waaw kon tey du yoon ma daje ak ñoom di bëre moom si biir ndàngaan xam nga ma la mais lamb ji dafa am nu mu demee xam nga ma la. waaw yow xam nga sax yéen saa gars yi su may wax ak yow nga ma xam nga xaw ma. tey bu ma ko mayoon. waaw tey bu ma ko mayoon commentaire xam nga lu ñuy wax. waaw bu ma daw fii yow yaa gën a xam li ma la wax. waaw loolu bi am du neex da war a da nga war a bëre ba Ama dani ko ndar daan la jël fas bu góor bi nag maa soxla fas bu góor moom mooy jël bu góor fas bu góor laa soxla non non non non yow doo béy yow béy doo doo yow doo béy waaw ban la bu jigéen yow doo béy man moom aw ma problème soo ma daanee yàlla mu jiw su ma la daanee ba eh, na nga am fair play mais su ma daanee nga indi problème dama lay jam nag. <laughs>